jërë ngeen jëf mbokk yi ni teewlu ci xibaar yi nga xam ne moo nekk ci biir internet bi ñu tàmbalee ko yéen ak seen Seneweb mi xëy fës xeex boo xam ni daanaka mësta jeex fenn xeex bu métte métti ci diggante ab awa akum ñaareel foofu ci dëkk kaw boobu di mbay awa bokk ci arrondissement Yang-Yang département bu Linguère ca région bu Louga ñaari wujj bokk benn buumu kër nekk di ayoo guddi ak bëccëg awa bay wuyoo ci turu Dembeng moo tàngal am ndox ba mu tàng jër daal di koy sutti ñaareel bi ca kanam ga ak doq ga ak lépp lu wër ca yaram wa ba mu jëlee ca ay góom yu méttee métti ba mu paree ca jëf ju ñaaw jooju dafa daal di samp ay xel daw wuti ca diwaanu ndakaaru yéenekaay bi ni ma de mbeng mi nga xam ni toll na ci ñaar fukki at ak juróom-ñeent bu jëm wi mu doon lu xeex di beekan toll ci ñaar fukki at ak euh, juróom-benn xeex bu méttee méttee méttee la jàppante li ko waral nag mooy ku jégu fiir dem ba daanaka boo leen tegalee boolu fiir it du nu ko laal bu nu sukkandikoo ci Seneweb nee na seen borom kër nag atte na ba sonn waaye xeex bi day ña ngi ko doon xeex ci kanamam altine mu mel ni xeex bu tara tara tar la ci ñaar ñi kar ku fa ñente yëkkëriñante ay ay sànnante lu ne waaye ndox mu tàng lañ ko mujjee faje ay kàddu yi ñagas ñu yëkkati ko ñoom ñaar ba ku ca yem rek taf sa gémmiñ yéenekaay bii di Seneweb ni ma xeex buy moom fa mu mujjee mooy centre santé maam bu Ndaw ba nekk ca daara fa la yóbbu ñaareel bi ngir nag doon ko faj ci góom yu mettee méttee métti yoo xam ni jëlee na ko ci xeex bi waaye ba mu paree te way docteur yooyu le jox nañ ko fa ab certificat médical boo xam ni fukki fan ak juróom lay toog du yëngal ab bant di faju ndax yaram wu xottiku ndaw sa daal di sampi xel nag moom foog ni raw na plainte nañu ko ba daanaka brigade bu gendarmerie bu yang-yang mi lan koy toppee mooy coup et blessure ci aw wujjëm woo xam ni jotewut ak moom lu dut fiiraange gu rëy goo xam ni boo ko tegalee fiiril du ko lekk seen news mbokk yi fa la ñuy daw foofa nag daanaka coow li bari na torop torop torop ci askanu Sénégal ndax nag euh, fait divers moom ñoom dañ koy yàkkamti akum nit li waaye ñaare amaana bu nuy nit li day am lu baree bari lu des ba tax na seen news ñëw na ci tasub sëyub Edu Ndaw ak euh, ki nga xam ne moo di Fama Thioune Fama Thioune nag yëkkati nay kàddu ci yéenekaay bii di Sene News moom Fama Thioune euh, la muy xamle ginnaaw nag ba mu tasee sëy boobu moom itam am ca ñaari doom ñëwaat na ci euh, ki nga xam ni day yëngu ci wàllum théâtre nekk ci série bii di infidèle di Bouba ñëwaat na ci moom ñu gën a laxasaayoo mariage bi nekk mariage boo xam ni ñoom ñaar ñëpp bëtu mbëggeel moom moo leen ñor dugg ci seenu yaram ba sëy ba tax na weeru euh, août deux mille vingt deux ca la ñu def sëy boobu ca diwaanu Maroc waaye fukki weer lañu am muy sëy boo xam ni ba ñu ko tàmbalee rek seen YouTube bii di Dakar live génne na fësal ab xibaar ni Fama Thioune day daanaka ma ngay waaj a tas ak Edu Ndaw ndax nag xibaar boobu ñoom ñu génne ñoom seen YouTube boobu di Dakar live amuñu ci lenn loo xam ni ndëgër laay la nes tuut xibaar bay daw ci réseau sociaux yi foo dem ci Sénégal rek nit ñi di ko wecce ko ba ci biir réew mi ngir bëgg a xam li xew lan la ndax ak acteur bu célèbre bi ak soxna si nga xam ne animatrice la boo xam ni kenn du ko présenté ba nu gëstoo nag def suñuy vérification xam na ni daal sëy bi moom ma ngay am ba léegi faama sax moom parewul benn yoon ngir génn nag ci buuba buuba mi nekk ci série infidèle ngir nag dem ci leneen loo xam ni xamu ko ba tax na day ñëwaat jàppat ñaari doomam yi nekkaat ak sëy ba ba mu gën a neex ci ab compte Snap tam sax ab compte Snapchat ca la fësal xibaar bi def ci benn vidéo wane daal ni mi ngi ci sëy bu neex mook Edu Ndaw te yaakaar na ni ci àdduna dara du leen ko yàkkal réew mi le koom réew mi point com mbokk yi nekk këru yéenekaay goo xam ni moom fa mu ñëw nag mooy ndénkaane yi nga xam ni tey jii xalif généralu kull murit yëkkati na ko dénk ko askanu Sénégal ngir nag ñu yokkaati ñaan defaraat euh, li nga xam ne moo di jikko yi waaye raxasaat xol yi ba tax na nag ci alxames ji nga xam ne moom leen dëtmal muy suba ndénkaane na ci daal bépp barabu jàmmukatu yàlla wala école boo xam ne day fësal njàngum alxuraan wala njàngum arab ñu daal di fay def la nga xam ni moo di njàngum alxuraan ñaanal Sénégal jàmm yàgg fi bu ko defee ñu delluwaat ci li fi mag ñi bàyyi woon muy jàmm muñ kersa ak euh, nekk benn muy kàddu yoo xam ni Serigne Mountakha Khadim Rasoul yëkkati na ko ci kër yéenekaay gi di réew mi le quotidien bu ñu dawee ca Seneweb xam ngeen ni mbiri Amine Ndiaye ñii bii di député bi nga xam ne doon na jàppante ak eh, ay ñoñam ci eh, ñi féete ci parti pur foofu ca assemblée nationale ba nu wekkoon ko ñu ni sax moom ndaw sile eh, jamono bi nga xam ne mbir mi day am dafa wan noon lor moom ñaari député yooyu di wuyoo ci turu Massata Samb ak Mamadou Niang ñoom day yoon leen seen i démb waaye kenn ku nekk ba nga delloo ci sa barab yëkkati nga ay kàddu bu nu sukkandikoo ci député Tivaouane bi di Massata Samb moom day nee na moom prison am njàngale mu yaatoo yaatoo yaatu la fa jëlee ndax nag bokk na ci barab yi nga xam ne daal ëpp na lu mu fa dalloo te dallu googu gëj na ko am ci àdduna ba tax na daal fi mu toll nii boo leen xoolee am ay forme donc la fa jëlee waaye amul benn yoon boo xam ni am na war a maam kersa wala ay taxawaay ci gis-gisam par rapport ak kaso ni muy bindoo ak dëkkuwaay yi muy nekk lu ni mel nag ma ngi ko yëkkati démb ba nga xamee ni ma ngay daje ak ñooñu di ay ñoñom euh, féete ci parti bi ak ay nitam am di jàmmam foofu ca Tiwaawan euh, fa la kàddu yu ni mel wax na daal ni moom fi toll nii euh, yëkkati daal li nga xam ni moo di yoon wi nga xam moom la seen parti jubal mu ànd ci liggéey fa yéene na ko am waaye nag dallu gi moom daanaka yaatu na bu baax a baax ba tax na cant na ak ngërëm bu nu sukkee ci yéenekaay bi di Seneweb ña xam ni ñoom ñoo àndoon doon ko soutenir bi mu nekkee ci difficulté yi lee ñu daw ca géejawaay info mbokk yi foofa nag xam ngeen ni daanaka mbirum sport la ñu indil ndax diggante Modou moom foo xoolee fépp foo xam ne ci àdduna rek ab yéenekaay wala ci diwaanu Sénégal ñu ngi koy yëkkati ay kàddu di ko laaj daal gëj gis gi nga xam ne gëj nañ koo gis ci arène bi waaye combat yi nga xam ne ñu ngi koy waajal ba tax na moom Modou Lo di ab euh, mbër ca diwaanu parcelle yëkkati na ay kàddoom daal ni moom boo sàkkunu daal dina daal di génn nag ci làmb ji sipp ci ay yoxom bam set wicc waaye daal di koy dénk ay rakkam yi nga xam ni ñoo nekk ci làmb ji fare foofu ca parcelle Assainies ku mel ne Franck ak Tafa lu ni mel nag Modou Xarañ Lo mi ngi ko daal di fësal eh, ci eh, li ñi nga xam ne ñoom la ñuy woowee jàmbar news moom wax na itam li tax kenn gisatu ko ci làmb ji ginnaaw 2019 ba mu jëlee couronne ba wax na moom le roi des arènes di eh, Modou Xarañ Lo wax daal nii moom li nga xam moom moo ko amal solo rek mooy ëllëgam ci làmb ji ak parcours bi mu def waaye nee na day moom amul benn gis-gis boo xam ne amati na ko ci làmb ba tax na laaj nañ ko sax ci combat bi nga xam ne moo dox ci diggante doomi Fallaye Balde jile Modou Lo daal xam la ne daal ni Ama ak Gris Bordeaux loolu day combat bu am solo la le 9 juillet ca arène ndax combat boo xam ni ki nga xam moo di Gris Bordeaux am na expérience tey itam ay ngala jom du ko fàtte mukk waaye ki nga xam ne moo di itam Ama Balde gune la goo xam ni ay technique am yaatu na loolu aw fitam diis na loolu ak rapidité kenn mënu koo nattaale waaye man de duma sori ci li nga xam ni moom laay mën a wax ci secret yi nga xam ni moom laa gis ci làmb jile ci diggante ñaari adversaire yooyu ñu daw ca immédiat immédiat mbokk internet yi la mu fësal tey jiile mooy mbirum Bassirou fay Faye ndax nag syndicat bi boot liggéeykatu impo et domaine ñoom boo sàggunut fan yi di néew dinañu xàppati li ñu duppee ab grève total mu mel ni ñu tënku ci bureau exécutif national bi bootu ci syndicat autonome euh, des agents des impôts et domaines maanaam kuréel gi nga xam ni moo boot képp kuy liggéey ci impôts et domaines pare nañu daal ngir xàppati ay gerew yi metti fukki fan ak juróom jàpp fukki fan ak juróom benn ci weeru juin bi nu nekk mu mel ni gerew boobu la ko sabab mbokki internet yi mooy jàppale seen naataango bii di Bassirou Diomaye Faye da nga xam ne yëkkati woon na ay kàddu jëmale ci magistrat yi ban teg ko loxo ñu daal di koy génne ci kaso bi ndax ñoom li nu jàpp mooy kaso boobu noonu di palaasam lii palaasam mooy dellu siwaat nekkaat ci liggéeyam ba tax na daal fas yéene na noo càmbarloo daal ak eh, li nga xam ne mooy ayu liggéeykaay yi bu ko defee ñu delloo siwaat ak ak yelleef waaye delloo siwaat li nga xam ni moo di ak jàmm ci Bassirou jamay fay ak seen naataango boobu di Waly Diouf Bodian te nga xam ne boobu ba léegi ñu ngi ci guddi gu bés setagul ñoom day fas yéene noo taxaw nag amal xeex bi daal di koy wéyalee mu nekk xeex boo xam ni xeex bu yaatoo yaatu lay doon Thiès info mbokk yi fa la nuy tëjee xam ngeen ni nekk seen site de référence bi nekk ci diwaanu Thiès moom day daw na démb ca Antoine jomb ba mu yëkkati kàddu ginnaaw ba mu amalee ab tukki ca chantier BRT yooyu def na ci nag papier bu yaatu moom la muy wax mooy jëye ju mett ji amoon jamono ji ñu génn te taaloon li nga xam ni moo de ay barabu jàngukaay nangu ay alalu jàmbur moo xam ñi fare ci privé bi la wala public bi taal ay oto nee na day jëye ju jooju Antoine Félix Diome jëwriñ ji dénkaaraange biir réew mi nee na dina ci ubbi ab lànket ndax am na ay vidéo yoo xam ne dem nañ sax ba euh, këru yéenekaay yi nekk ci tugal ak biti réew fësal nañu ko dema dema dem ba ci biir daal ñu xam le ni ñoom euh, li nga xam ne moo di ñàcc àndoon ak police doon manifester ñoom jàpp nañ ne ay nervi lañu Antoine nee na leen loola day dees na ci ubbi ab enquête ba xam daal nervi yi kenn ku nekk nag mën ngaa wax ci sa position wax say xalaat waaye yoon moom kenn la te benn àtte lay àtte te bu àttee ñaare dëgg lay doon kon dañuy jàpp rek ni mbir mi moom dinañ ko yóbbu ba ca diwaanu yoon bu ko defee ñu xam fan la wànneen di mujj ak i gëtam ñi ni woowee ay présumé euh, nervi bu ko defee ñu man leen a topp ña nga xam ni itam laale wuñ ca bu fekkee du ñoom itam ñu tegaat dossier bi ci suuf lu ñu mel nag mu ngi ko yëkkati naaw démb ba muy ànd ak euh, jëwriñ euh, premier élimaan yi jëwriñ ji di Amadou Ba ak jëwriñ ji dénk wàllum dem ak dikk ci suuf di ki nga xam ne moo di Mansour Faye ca la yëkkati xibaar yi mbokki internet yi lii moo nekkoon tour di web ñu leen ko doon indil tey jii euh, sàkku ci yéen itam ngeen wéy seen i abonnement ci suñu seen YouTube bi mooy lan da ngeen di bës. abonné boo leen pare ngeen laal cloche de notification bi bu ko defee vidéo bi man di apparaître foo leen mën a ne ci dunia boo leen pare itam sàkku nañ ci yéen ngeen commenté ko waaye ngeen partagé ko ndax lu am solo la fii la ñuy buure xibaaru tour de tour di web jaajëfal leen sàkku ci yéen jox leen dig daje ëllëg ak beneen numéro jërë ngeen jëf